système boobu moo amoon maintenant système boobu noonu il a il a atteint ses limites mm-hmm. et peut-être il nous faut revenir à l'ancien système effectivement nga xam ne ñun par exemple on a consommé enfant de l'huile d'arachide mm-hmm. Mm-hmm. effectivement effectivement <coughs> Samuel Sarr bien que waxtaanee nañ ko ci semaine bi sax mais juste pour avoir votre avis monsieur Fofana euh, Samuel Sarr il a bénéficié d'un retour au parquet hier boo waroon ko entendre devant le procureur Euh, ci projet en euh, supposé détournement de fonds ci projet euh, West African Energy ban jàngat nga def ci loolu noonu la mooy sa appréciation bon d'abord lan mooy West African Energy mhm. dañuy commencer sur des choses simples xam nga nag j'ai eu bon c'est vrai c'est un parcours professionnel que je, je revendique mhm. dans le secteur de l'énergie mhm. Sénégal dañoo découvrir pétrole découvrir gaz c'est vrai que pétrole ëpp Bayré waaye le Sénégal a plus de gaz que de pétrole mm-hmm. on a à peu près cent mille barils de pétrole qu'on exploite mm-hmm. et on a presque cent milliards de mètres de gaz qu'on doit exploiter moo tax boo seetloo le Sénégal est rentré dans l'organisation des pays producteurs de gaz mm-hmm. mais le Sénégal n'est pas rentré à l'OPEP e e parce que OPEP e il faut avoir des des production à peu près qui dépassent un certain nombre mhm. te niveau bi tax nga dugg EPOP ñun amuñu ko mhm. maintenant ci kaw loolu le Sénégal a pris l'option de prendre euh, la plateforme GTA mmh. Grand Tortue a xam nga xam ne ñun ak Mauritanie ñoo ko bokk mhm. pour exporter mmh. Sénégal a pris l'option de prendre Yaakaar mooy la plateforme autour de Kayar pour produire de l'énergie au Sénégal mhm. parce que Sénégal dafa ne ñun dañoo bëgg suñu pétrole ak suñu gaz mu permettre ñu ñu am énergie mhm. loolu moo waral ñu ne dañuy def ce qu'on la stratégie gaz to power gaz to power mhm. mooy utiliser une partie du gaz que nous avons pour produire de l'énergie ci kaw loolu nag la ñu ne il nous faut créer une centrale centrale boobu mooy West African Energy mais maintenant centrale boobu tamit pour revenir à que Samb disait tout à bokk na ci loo xam ne man dama ce dama ko rafetlu woon ci Macky Sall mm-hmm. et Macky ci xuloo woon ak waa FMI ils ont décidé de prendre cette centrale et de donner à des privés sénégalais mm-hmm. te Macky Sall bañ ko ko laajee da ne yéen ngeen ne ñun dañoo war a yor suñu économie mm-hmm. mais si secteur énergie bi y pas de privé donc je les invite y a pas eu d'appel on a dit Samuel Sarr Arouna Dia. Mhm. Euh, Abdoulaye Abdoulaye Dia Abdoulaye Dia Khadim Dia Khadim Gueye Moustapha Ndiaye Moustapha Ndiaye. kaay leen ngeen toog. ay champion waaw ay champion ku nekk sa secteur. kaay leen ngeen toog ngeen xool business bi nan ngeen ciy duggee. Mhm. y a aussi la Sénélec. oui mhm. mais forcément parce que. quand ils auront produit de l'énergie. moom la koy jox Sénélec loolu moo waral Sénélec bok ci biir. donc voilà comment histoire est née. maintenant c'est une association d'hommes d'affaires privés mhm. Mhm. ñoo war a créer une centrale mhm. centrale boobu exister centrale boobu produire énergie énergie boobu ñu jox ko Sénélec Sénélec jox ko Sénégalais yi voilà le schéma mais ñoom seen biir entre ñoo am problème le consortium le consortium parce que tey jii nii moom Samuel Sarr ci d'après lu ma comprendre dafa am beneen société bu ñuy wax Ndar Énergie boo xam ne moom ak bay di añ ñoo fa nekk mhm. ñu def ay prestation si West African Energy mhm. ñu fay leen audit bi ñëw ñu ne Samuel yaa moom lii yaa moom lii ñu ne détournement la mhm. maintenant comme ñoom seen biir ay actionnaire leen ci biir beneen bi tamit Samuel kii ko porté plainte moom mu porté ko plainte parce que jàpp na ni Moustapha Ndiaye waaw jàpp na ni kooku noonu il n'avait pas qualité à agir parce que nee nañu débarqué nañ ko de son petit poste de PCA maintenant coowal actionnaire la hmm. buñ ko fàtte de hmm. coowal actionnaire la hmm. maintenant ci biir coowal actionnaire boobu noonu bu plainte amee yoon day day laaj ñu leeral ko ci foofu lañ toll maintenant kan moo def kan moo deful yoon dinañu ko wax mais man lu may rafetlu wul ci lu xew mooy nit koo xam ne dafa jóge aéroport rek nga ne ko coppet yóbbu parce que jàpp naa ni c'est pas quelque chose boo xam ne ça donne un, mm. un, un bon signal mm. à nos parce que quand même dawul ku doon ñibbisi la mm-hmm. bu doon da doon génn ñu ne waaw mais ku doon ñibbisi la mën nga ko fekk këram koo ko ndànk mais avait-on besoin de l'humilier avait-on besoin d'aller l'arrêter à l'aéroport parce que foofu lay waxee naan attention mooy lu ma doon wax sànq si environnement des affaires mm. bu fekkente ne yow tu dans un état où tu manques de tout tu veux que les gens investir benn bi tu fais de l'inquisition fiscale boo xam ne day tax gars yi ñu ne ah dëkk bi de moom dañ leen topp di la topp di la topp ba sës la ci mur bi hmm. nga jógee ko foofu noonu ñu ne non tu traites les hommes d'affaires de voleurs de dealers d'association de malfaiteurs d'association de malfaiteurs hmm. après tu vas arrêter pour les humilier de cette mais est-ce que boobaa sàmm boo amee sa di nga ko dugal Sénégal tu vas y hmm. donc problème bi mooy man loolu laa ci gis tuuti loo xam ne quelque part hmm. nañ ci bàyyi xel nous sommes hmm. en concurrence avec des pays hmm. yoo xam ne ils proposent des avantages comparatifs comme ñun ndaxte tey yii nii une partie du transit malien passe au Sénégal au Sénégal oui mais la Côte d'Ivoire est en train de développer son port ah pour capter ça donc nous le port de Dakar là il doit en concurrence avec le port d'Abidjan boo ko deful tu am na tey jii nii ñoo xam ne ils veulent même passer par le Togo par le Burkina à travers une ligne de chemin de fer donc tu vois mm-hmm. quelque part nous sommes ouverts sur l'océan mm-hmm. mais boo deful ndànk nous mm-hmm. risquons d'être fermés dans l'interland mais pour que loolu mu bañ am il faut avoir des éléments qui captent les investisseurs. mais yu mel nii nag quand même man damaa jàpp ni mais qui quitte de son de son euh, de son avocat bi nga xam ni mm. moom nee na le cabinet Mazars dañuy topp saawaay pour huit milliards de francs CFA. moom mu ni moom mu ni du huit milliards deux milliards la. est-ce que tamit gënul gënul euh, comme on dit de de de sur le feu. waaw mais même bu fekkente ne un franc la même bu fekkente ne un franc la y a un audit qui a dit am na lu ci leerul. Hmm. kon nag dañ ko war a leeral moo tax may la tey jii nit mën nañ ne waxoon nañ ñu fi ni Prodac vingt neuf milliards la kañu mujj topp du six cent millions lañ ko toppee. Hmm. non muy noonu maintenant l'essentiel ñu ñu war a topp nañ leen topp. mais lii nii Sonac déjà un na xam ni c'est une affaire entre des privés. c'est pas l'État. malgré que c'est des privés quand même importants parce que c'est des champions comme nu ko. Mm. grand bi waxee dans ton mm. domaine. Mm. maintenant nag avocat bi aussi. il va pas dire que son client jël na huit milliards donc c'est tout à fait normal il va chercher à défendre son client il va chercher à minimiser euh, le montant ak yooyu noonu loolu c'est son rôle maintenant affaire moom nañ ko leeral ñu leeral parce que projet bi taxoon ñoom consortium boobu taxaw projet boobu c'est pour les sénégalais. mais justement justement Bachir. parce que projet sénégalais yi la moo tax même bu fekkee ni c'est une affaire entre entre entre hommes d'affaires. Mhm. bon ça ça veut pas dire que ni état bi tamit dafa war a toog di seetaan quoi. du tout et sachant que d'ailleurs il y a la Sénélec qui représente l'état avec 15 pour cent. ci li nga xam ne moom mooy mooy mooy part bu mu ci am. Mhm. mais foofu noonu li ma bëgg laaj mooy. Euh, tey ñu ngi wax ni Sénégal wax nga ko léegi nii dañu bëgg a développer vraiment suñu euh, énergie yu yu mag avec tout ce qu'on comme gaz et autres quoi. Mm -hmm. et ce qu'on a constaté pour la plupart du temps mooy bu ñu wax ci wàllu pétrole bi ci wàllu gaz bi ah jusqu'à maintenant boobu amaguñu benn perspective boo xamante ni leer na suñu bët. bu nuroog li nga xamante ni West African Energy tegoon na ko parce que récemment ils ont inauguré euh, la centrale de Cap de Biche. Mhm. bi nga xamante ni tey avec trois cent soixante trois cent cinq mégawatts yoo xamante ni mun na couvrir vingt cinq pour cent des besoins des Sénégalais. Tout à fait. avec rien que le projet rek. Oui. tellement ambitieux avec 16 euh, milliards de de capital financier. Oui. est-ce que jotul état bi nga xamante ni Sénélec moom moo fay représenté. pour l'intérêt des sénégalais mhm. ndax ñoom jotul ñu ñu ñu récupérer projet bi sauver ko. no xam nga récupérer projet bi day fekk état mu taxaw mu ne man damay jënd vos parts day fekk ñaar. oui mu am benn ñii am seen part bëgg jaay. ok benn ñaareel bi kii di jënd am lu mu jëndee. Hmm. ñaar yooyu moom bu amul jënd mënu fa nekk parce que effectivement. maintenant est-ce que est-ce que également lan moo nekkoon l'objectif de départ c'est permettre d'avoir des nationaux dans le secteur mmh. du pétrole et du gaz parce que quoi qu'on puisse dire booy wax waxi pétrole ak gaz Sénégal tu vas penser aux multinationales tu vas penser à Total à Shell à ExxonMobil mmh. tu vas pas penser à à, à Awa Bachir mmh. ou mhm. keneen ak keneen mhm. donc l'esprit bu taxoon ñu def loolu moo doonoon nañu am des champion sénégalais dans le secteur. Mhm. maintenant bu fekkee ne nag esprit boobu noonu. tey jii nii lii mën na ko gàllankoor. Mhm. état mën na xool nu mu jëlee loolu. Mhm. mais encore une fois day fekk ñoom ñi nga xam ne ñoo ko moomoon ñu toog ak waxtaan. déggoo état racheter seen part. jël ko exploiter ko mais tey jii nii bu boobaa c'est toujours l'état alors que nous nous voulons que des privés développent pays gis nga dëkk bu développé ay privés ñoo ko def. gis nga état jour rôle arbitre la war a jouer. waaw l' état doit être un arbitre. Mhm. l' état doit être un régulateur. Mhm. maintenant l' état doit libérer les énergies. permettre à ce que ku nekk mu ñëw comme nu mu ko waxee déparé nga Dakar ba presque Thiès benn toolu xaal la mais loolu il faut de l' investissement pour le faire. Mhm. mais investissement yooyu noonu privé da ko war a indi exploité donc fii nii loolu moo fa nekk maintenant nag état loxo mu ci biir ndaxte la dem ci justice état la. bañ ko war a yóbbu ba justice état la donc loolu mooy benn ñaareel bi ña bokk Senelec woo nañ ci dossier bi entendre nañ leen benn mhm. comme c'est un dossier également en instruction xamaguñu lan moo ciy génn da ciy xaw a tey tuuti mhm. parce que xamoo kan moo def xamoo kan moo deful mhm. mais lu wóor ba wóor idée bu ñu taxoon ñu teg projet bi idée bu noble la nuñ ko amee ci secteur boobu noonu lañ ko war a amee sur le secteur minier noonu lañ ko war a amee sur le secteur de la pêche tey jii on a plus de licence ou d' autorisation de pêche avec les bateaux hmm. européens mais dañoo war a dooleel suñu armateurs sénégalais pour que ñoom fu européens yi doon dem ñoom ñu dem fa hmm. et ainsi de suite donc loolu mooy loo xam ne lii mooy tax mu hmm. am disons euh, des champions dans le secteur parce que tant amuñu ay champions Mm. Sénégal bi du développé. Euh, euh, vous êtes journaliste et euh, vous êtes aussi dans la communication politique. Mm-hmm. xam nga li nga xam moom la politique di demee fii Sénégal. Mm-hmm. no noo apprécier. Mm-hmm. cette communication là bi nga xamante ni quelque part ça ternit l'image de de. comment Samuel Sarr parce que dossier lu mu nekk en instruction il est présumé. ci fait yu ñu koy toppee. mais on a vu une partie boo xamante ne génn nañ déjà di ko incriminer euh, commencé nañ di ko tudd donc même ñu ngi def ils font étalage des scandales yoo xamante ni am na cité ko si pour amplifier un peu un peu l'affaire est-ce que loolu lañ soxla jamono jiw. non on n'a pas besoin de ça xam nga Samuel Sarr c'est un nom public. Mm. c'est également un politique Samuel Sarr amoon parti. si Samuel Sarr il se définit comme éternel wadiste. Samuel Sarr au tout début de l'alternance jàppante na fi ak Macky dugal nañ ko fi kaso. Mhm. yéen a ngi fàttaliku loolu. si si ko fi génnee après il s'est rapproché de Macky Sall. il mhm. était un des soutiens de Macky mhm. donc dans en étant un soutien de Macky Samuel Sarr a eu à porter des critiques acerbes à l'endroit de Ousmane Sonko. si loolu ñëpp ko gis. donc boo jëlee loolu yëpp boole ko da ngay comprendre pourquoi ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir war bokk ñu ànd ak ceux qui sont au pouvoir pourquoi ils cherchent à Maintenant, Taïdini, il a été ministre, il a été beaucoup de choses, directeur général de Sénélec, c'est un homme d'affaires qui a. Voilà, il fait son bonhomme de chemin. Comme Taïdini, Ablaï Silla, nous on est politique, il est euh, homme mm-hmm. d'affaires. Mm-hmm. Voilà, maintenant, Taïdini, Mom, Samuel, Amour qu'on défendre, il faut le reconnaître aussi. Oh, les gens sont en train de le charger, alors que le dossier est Boulsach. ci juge d'instruction mhm. parce que le dossier entre la police mhm. et le procureur et le sax ci juge d'instruction parce que mhm. boo déggee comme awoon nu mu ko waxee am na retour de parquet démb mooy présenté wuñu ko juge oui donc tey jii il n'a pas face au procureur hier voilà il n'a pas face au procureur donc ça veut dire que dossier bi eggagul sax fu ñu naan yow tuumal nañ la wala tuumal nañ la pour l'instant accusation la quelqu'un a porté plainte contre toi on t'a auditionné on t'a gardé à on doit te présenter au procureur mhm. maintenant le procureur en fonction des éléments yu ñu def ci enquête bi mhm. moom mooy xool ndax lii da koy juger en instruction wala da koy juger flagrant ndax da lay placer day demander ñu placer la sous mandat de dépôt mhm. wala da lay mettre sous contrôle judiciaire wala wala sax mu ne est-ce que lii jarul enquête je classe l'affaire bien sûr foofu lañ toll. Mm. alors bi ma la déggee sànq dafa mel ni bi ngay wax rafetlu woo la manière dont on a fait l'arrestation de de Samuel Sarr. alors on a assisté pas mal de d'arrestations ci semaine yi ñu jàll nii mooy euh, Moustapha Diakhaté ak Adama Gueye lan mooy sa avis ci li nga xam ne arrestation yi ñi ngi ñi ngi dajaloo fan yii yëpp. bon xam nga nag euh, man Moustapha Diakhaté dama koy ñaanal moo Adama Gueye et puis ak Cheikh Thiam aussi. Mm-hmm. beneen beneen boo xam ne moom tam. woo nañu ambassadeur ambassadeur di leen ñaanal ñoom ñëpp di leen ñaanal ni comme il doit faire face au juge entre demain jeudi et vendredi mm-hmm. ñu jëlee fa relax mooy maanaam lu ñu leen di toppee defuñu ko wala ñu jëlee fa au moins condamnation avec sursis ñu ñibbi seen kër gis nga euh, awa dëkk bi ñu nekk dëkk bi dañ ko war a teg ci yoon mm. teg ko ci yoon mooy nañu fexe ba kàddu yi ñi nit ñi di jénnee mu doon ay kàddu yu rafet loolu mooy benn maintenant wax politique bu génnee tontu politique la war a doon man si man bu Moustapha Diakhaté ne ñii woteelul ñii woteel Pastef dañoo alko mm. tontu bi mooy yéen ñii woteelul Pastef yéen a alko wax ji jeex d'autant plus que bu fekkonte ne wax ju rëy kese la wax ju rëy dégg nañ ko fi bataay mm-hmm. à commencer par Ousmane Sonko te dara fekku leen si ndaxte damay jël ñett cas yoo xam ne yàggul dara ci élection présidentielle deux mille vingt quatre bii dégg ngeen fi Oustaz Bamba Sall. Mhm. Oustaz Bamba Sall dafa toog muy wax ci Amadou Ba mu ne candidat boo xam ne dafa wàcc suñu soxna yii ak seeni i taar ak seeni i jongoma pour dem takk Guinéen. seen cuuraay ak seeni i cuuraay. candidat boo xam ne dafay bàyyi suñuy soxna bi dem takk Guinéen jigéen bu ko woteel doomi xaraam la. Mhm. c'est ça qu'il a dit. ok. et. Eh, loolu. Mhm. ak yow ni mu neexee. waaw dégg nga loolu si koo xam ne ne nañ imaam la. Mhm. Mm. nga jóge koo foofu ñu jox koo xam ne Cheikh Thioro mu toog ñëpp di ko. imaam imaam pro Pastef quoi. oui mais bien sûr. imaam pro mais la pro Pastef ou pas imaam la. nga toog fii gis koo xam ne Cheikh. Coro Mbacke toog lépp di ko dégg mu ne képp ku bañ Sonko ak Pastef sa ndey daa liggéeyul mais ça c' est des propos graves parce que bu dee Moustapha Diakhaté moom ñii woteel Pastef la ñu wax ci élection yi et un million neuf cent mille hmm. mais kii jigéen ñëpp la waxal Abass Fall dolli ci Abass Fall mënut a ñàkk ah. ñambaas ci Abass Fall hmm. muy beneen waaw boo xam ne mun nga ko si ñambaas nga ñambaas ak keneen keneen maintenant après mooy lu may wax man la ñu doon bañ ca nguuru Macky Sall bañ doon naan dafa am justice kumba am ndey ab justice kumba amul ndey perception boobu lañu commencé gisaat ñépp ñi nga xam ne ñi depuis nguur gi toogee ba léegi jàpp nañ leen ci kaw ay kàddu yu ñu yëkkati ci penc mi rek ñoom ñëpp c'est des opposants mais nag Bassirou est-ce que est-ce que loolu loolu c'est c'est ça doit la règle. non que ni que amoon na démb rek tey ku ko fi tamit dañ lay bàyyi noonu ngay wax say dérive. xam nga déggoo fan laa commencé. j'ai commencé par dañoo war penc mi kàddu yi ñu rafetal xam nga fa laa njëkk commencé. Mhm. kon sa veut dire man d' accord ma si ku nekk wax lu la neex. Mhm. damaa d' accord ci damaa jàpp ni nit ku ne da nga war a wax wax yu teggi na ci kàddu. si ci mhm. penc mi. donc démb na ma d' accordul woon ku ko def tey noonu laa ko ñàkk d' accord. lenn rek mooy la différence mooy li ma leen di wax toujours démb bañ ko defee ci ay nit dañoo ne woon c' est pas normal tey dañ koy def ci ay nit ñu bëgg koo daganal. c'est ça simplement la différence. jaman mm. yi taxaw na saaga magistrat yi ñu tëj ko. ñu ne waruñu koo tëj il exprime sa liberté. Mm-hmm. n'est-ce pas. Khadim Bamba Diagne taxawul fii mu ne magistrat yi ñoo gën a dëng rond mm-hmm. ba mu ko waxee lan moo ko si fekk dara. lu tax parce que c'est un soutien à Pastef donc loolu mooy lu ma la perception de justice à deux vitesses boobu noonu la ñu war a éviter. dañoo war a fexe képp koo mënti doon ci Sénégal fii. nga tuddu Bachir nga tuddu tudd Massamba nga tudd Mapaate nga tudd Mademba képp ku wax lu waxul yoon dal sa kaw man loolu laa gëm mais boo seetloo ñépp ñu yoon dal seen kaw ay opposant lañ loolu mooy loo xam ne da nga ko siy seetlu mais bu loolu jàllee leneen li man je suis d'accord moi je veux que ci mënti doon ci réew mi booy jël kàddu di wax mu doon ay kàddu yu tekki ne man sa bopp loolu mooy sama crime ah, man doo ma ah. dégg mukk ma wax wax joo xam ne bii mën nit nag moomul soo bopp accident de langage comme on dit mën na dal ku ne mm-hmm. mais man j'évite au le le mieux que je peux de stigmatiser d'insulter ak yooyu te ku nekk loolu moo war a nekk sa sa credo ndaxte tey jii nii dañoo war a fexe de sorte à que lu ñuy wax tey te muy dal ci YouTube bi ndax cinquante ans xëy na yàlla du ñu fi fekk du ñu fi bàyyi ko suñuy doom buñ ko yëkkatee mm-hmm. seetaan ko bu ñu am gàcce. loolu nag ku nekk nag dafa war a nekk une obligation pour tout un chacun balaa ñuy doon une une ambition collective. merci beaucoup am na solo alors ma bàyyi la nga sa avis ci l'affaire Samuel euh, je pense yi ñu fi wax euh, fi ñu fi ñu fi ñu dalee sax ci démocratie man démocratie man en matière de démocratie je reste intraitable man bu ñuy débattre ci démocratie euh, damay damay jàpp ni amuñu lu ko gën jusque là. te fondamental c'est le moins le moins mauvais des systèmes. loolu la Churchill waxoon la démocratie est le moins mauvais des systèmes. le dire que am na ay manquement soxla na veille citoyenne soxla na veille euh, morale comme li li li wax. parce que mm-hmm. pour man ñi ñuy def politique euh, dañoo war a nekk ñi gën ci ñun. parce que sunu lépp lañ leen dénk. Mm-hmm. ni ñuy takkee suñu jabar ni ñuy tuddee suñu doom euh, sunu héritage sunu dund bi ñu commencé bi ñu jeex. politique ñoo koy doxal je pense ñooñu euh, bu ñu génnee ci penc mi di wax war nañoo wax lu am njëriñ. Hmm. war na ñoo wax loo xam ne day dafay peser sur l' amélioration de nos valeurs morales sur leur conservation gis nga kersa. Hmm. dafa bokk si suñu culture ñun. Hmm. waaw xam nga xam nga tubaab yarewuñ ko ci kersa. xale bu ndaw bu tubaab mun naa wax lu rëy. yow bon boo nekkul seen culture mu jaaxal la. parce que bokkul ci seen yar yar ni ñu leen mais ñun dañoo am kersa te mi. Euh, je pense euh, politique yi ñoo ëpp li ciy wax. te bu ñuy wax ñu waxee euh, xolu bañeel wala wax loo xam ne dafa subjectif parce que Houphouët-Boigny moo doon wax y' a de solution au problème subjectif. kii neex na ma wala neexuma débat boobu mooy li daal Cheikh Thioro moom moo daal peut-être Moustapha Diakhaté mën na daal aadama Gaye et cetera mais nañu def règle nañu ñu yóbbu suñu législation. ci loo xam ni du ñu traité ay question question subjective ci sunu ay ci ay tribunal ay article deux cent cinquante quatre ay mm-hmm. article quatre vingt yooyu ñu ngi commencé xewi quoi. surtout que a génn. waaw yooyu toll nii gis nga y a une tendance mm-hmm. à l' affirmation la citoyenneté. Mm-hmm. gis nga doomu aadama yi fi mu toll nii bu ñu xëyee euh, li ñuy wax la communication est devenue un objet de consommation courante. nit ñi dañuy dañuy ñoom ñoom ñoom ñii. Euh, ñoom Bachir ñii fi mu toll nii ñoo yor àdduna bi. boo boo demee États-Unis xoola Oprah Winfrey fu mu toll. Mm-hmm. ku bëgg jël réew mi di nga wax ak moom wala nga bàyyi ko xel donc communication yàlla ci la defar àdduna bi. nit ñi mënuñoo bañ a wax sànq maa ngi koy wax Serigne Mbaye mu ko ma ne ko bu nit ñi noppee eh, gaynde yi ñooy xiiru wala picc yi yokku donc il faut que ñu bàyyi eh, l'affaire affaire Samuel Sarr li ci li ci Bachir wax dama ci àll ñëw parce que euh, Einstein moo doon wax quelle que la force de l'édifice nul ne peut construire sur un Mhm. gis nga bu demee bay yëngu dëkk bi di yëngu nit ñi problème am crise de confiance. Mhm. waxuma sax bailleurs ne ci biti mais champion yooyu ñu wax ci biir. ñoom dañuy dem takki seen i jabar. Euh, takki ñeenteel tabax tabax seen i seen i immeuble am seen client def benn gardien ci suuf mu nekk benn emploi ak ñaari jànk yuy penance ak benn plombier mu nekk cinq personnes donc risque yi ñu war a jël euh, je pense il faut que ñu qu'on fasse la part des choses man li may xaar ci leader yi ak tout le système parce que dañu jël ku mel ni Samuel Sarr ñu def ko l'un des symboles du système. voilà au plan politique. exactement il fait partie des symboles ñun bi ñu màggee dañ ko xam. di ko gis euh, peut ak benn bët boo xam ne moom la ñu laan wan. tey xëy na am na lu mu baax lu mu def ba courant di am walla électricité walla en tout cas jël na ay risques. Mhm. parce que ku ku nekk une personnalité publique rek. am na risque yoo jël ci sa dund. Mhm. waxtuma nga boole ci jël sa alal di ko investir kon am na lu ko état Sénégal yoral ci worma. waxuma ni moom il est au-dessus de la loi. Mm. man ma sañoon président Diomaye Faye euh, ñu mën koo woo bu dee ne euh, jar na ko. Mm-hmm. waaw ñu wàññi ay pouvoir am ba mën koo mu am impeachment comme aux États-Unis parce que ay nit lañ. Euh, te loolu dafa baax ci suñu conscience bu ñuy doxal. mais tey jii ñu fekk ko aéroport jagat jagat yeeg yóbbu mm. commencé teg communication boo xam ni presque. attenañ nañ non avant même. Mm-hmm. ñu ko mu ñu ñu tuddati avant même muy wàcce. ñuy commencé naan y' a un ancien dignitaire qui sera arrêté xam nga aussi. Mhm. loolu mooy lu si xaw a. machination la waaw machination boobu muy wax. donc te loolu je pense euh, parce que xam nga régime bi parfois ci communication politique bi dañu annoncé ni war nañoo mën a jàpp ay nit dina am reddition des comptes et cetera yu bëri système bi c'est la fin du système loolu nag boo ko doo ko décréter da nga koy bàyyi justice. Mhm. soo ko annoncé da koy bëgg jox contenu. parce que tey il faut nga dem def cour de pour mën a wax ak ñi nga xam ne ñoo yoroon ay ministère ak yenn diggante bi nag boo da nga ciy mën a dugal benn Lat Diop en tant que directeur mm-hmm. dugal ci Samuel Sarr et cetera mm-hmm. mais je pense su suñu deful euh, attention euh, instabilité boobu mm. euh, dina leen dina leen dina yéexal lu bëree bëri ci li ñu doon def mm-hmm. wax nañu stratégie gaz to power mm. tey Sénégal soxla ñu soxla nañu énergie pour notre industrialisation soxla nañu énergie dëgg-dëgg également pour nos voisins parce que man dama gën ni on se développe avec nos voisins mhm. tey Sénégal bu jëlee ndox Guinée la ko jëlee donc avec la les les contreforts de de de du Fouta Djallon en Guinée mhm. ñun war nañoo mën a ànd ak ñoom mhm. mu am ay stratégie commune ba tey le développement soit harmonisé harmonieuse si si sous région bi ñu am ay industries yoo xam ni am na secteurs yoo xam ne mën nañ ko bokk tey ji mën nañu jëlee Euh, euh, ay ay ay ananas Guinée ñëw industrialiser ko fii mën nañu jëlee fii dara yóbbu ko foofu man ci dimension yooyu laa nekk ba nga xam ni nos champions même sous-régionaux war nañ leen mën a gën a encourager dans un espace d'intégration économique euh, ñu mën a ñëw Sénégal waxtuma ñun Sénégal Samuel Sarr je pense a été bon de son engagement politique ah oui, quelque part sa sa Samuel Sarr stigmate yu bëri dund na ko man xaw ko politiquement d'accord ma woon ak moom mais quand même parfois da nga dégg ñu ne la sax Gambien la yenn c'est une personne assez énigmatique waaw Sénégalais yi diaboliser ko def ko symbole du système dafa yomb. ma je pense nañu respecté. Euh, àqu yi àqu àqu ak ñi nga xam ni. Mm-hmm. tey ñu ngi leen di ñu ngi leen di parce que justice dafa am solo. gis nga justice mooy base de confiance. Mm-hmm. tey bu ñu demee ba état de droit ñu koy wax. Mm-hmm. république ñu koy wax. socle fondamental bi. pilier bi ñu war a teg parce que ci dans système bu mel nii nga xam ni état dafa woo ay nationaux. muy nationaliser pratiquement une un pan énorme de son économie. Euh, fondement bi li ñuy xaar état. moom mooy mu sa mu tabax mu samp pilier yi moom lañ ciy xaar léegi bu ko defee nag champion yu mag yi ñi nga xam ni investir nañ réussir nañ ci yeneen domaine mën na def reconversion wala ñëw mën a mën a investir ci capital bu mel nii et cetera mais maintenant bu amee bu amee xuloo seen biir euh, parfois euh, war nañ ci mën a neutre ba pare bàyyi mu am tuuti sérénité parce que ay jaan yuy xeex mm. boo dul boo dul jaan dool bu leen àtte <laughs> sànq euh, Bachir mi ngi wax ne que ñi ñi yoon dalagum seen kaw ñëpp ci mhm. opposition lañ nekk est-ce que parfois ça donne l'impression que gouvernement bu bees bi dafa ñëw pour fayantoo wala yu demee noonu est-ce que tamit duñu xalaat